li mu dund ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey dafay nekk ne am na quatre-vingt-dix-huit te yonent sallallahu alayhi wax nañu xayrukum man taala umruhu wa xasuna amalu gën ci yéen mooy ki gudd fan ba pare jëfam baax te Seyda Zahra mooy yaay ñës xudwa woon euh, royukaay ci baax ak ci def lu baax ci jub ak ci jubal kilifa ci jàng alquran ci di wàccee kaamil bi at mu eh, ajuma di jot ci di julli ak mbooloo mi ci di wasifa ak mbooloo tey damu damu bu mag am na fii ci Medina waaye damm damm bi li muy mag mag mag duñu wax lu dul lu neex yàlla waaye tàggoo gi soxna si tàggoog ñun euh, danañ ci am lu ñu métti suñu xol suñu rongañ dana tuuru waaye lu neex yàlla rek la ñuy wax loolu la yoon sallallahu waxoon keroog ba ñàkkee doomam ji Ibrahim alayhi salaatu wa loolu la ñuy wax ci Seyda Zahra mi jigéen ju xiw jigéen ju bëri nga néew jigéen joo xam ne yàlla baaxe na ko mu nekk ne mooy ci Cheikh Ibrahima Niass njëkk a gis ci njaboot yàlla baaxee ko mu jàng alxuraan tari ko yàlla baaxee ko dénk ko Cheikh Ibrahima kim gën a óolu bu Seydi Ali Cissé nga xam ne keroog buñ bindee wax si yaam bi jox ko ko ne ko def naa la ngay sama xalifa Seydi Ali boobu dafa gisoon ci moom mu ñëwaat ci bàyyi di ko wax ne ko lii diis na ak moom bàyyi na ko jël te xam ne jox nañ la ko ci lu duur loo ko laaj laajoo ko jox nañ la ko maanaam danga ko koo yelloo ñu jox la Seydi Ali yàlla mi nga xam ne mooy tànn di boole mu tànnoon Seydi bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko ay tànneef yàlla moom moo tànnoon Cheikh Ibrahim tamit boole woon ko ak ay tànneef bokkoon na ci tànneefam yi gën a ràññee ko Seydi Ali Cissé li nga xam ne بايوخ نتي موم ايوخ مبري ay خلفتك حيث لم يكن معك احد دفنا لا خليفه فك بوبو نيكو اك كين اقمتك مقام نفسي دفنا لا تخولنا لا سما سما مقام سما فما فادو رك يو بو فا نيكاي مان ماغا واخ بو بري بري بري كون ميراس الشيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه تشيرون صلى الله عليه وسلم دفا فين في ديغنت سيدي علي اك فاطمه الزهراء يلا مي دارا تو ديف دوم ني سين تاو بوكو سيدي علي يجل كو شيخ ابراهيم شيخ ابراهيم نك زينابو في الحسن حسن مو فاطمة الزهراء مو يايم ليغي بو بري ليغي لو يات تي فاي دوبي تي دينتي تي طريقه بي تي صح دوم ادم رك اك جو مانا دو فايدا واي نيت al imam Cheikh Tidiane Cissé ñëw wuutu ko ci place boobu noonu nga xam ne Cheikh Ibrahim moo waxoon ne wal imamatu fiha bi sayidi ali wali awlaadihi al hasan thumma man sha allah mu nekk na kon xëy na mashiatullahi tabaraka wa taala jooju tombee na ci imam Cheikh Tidiane Cissé mata an allahu taala bi baqaayihi mu feggoo ak rakam Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne moom it mu ngi ci liggéey boobu moom di ko ci jàppale di yaatal liggéey yi nga xam ne fekk nañ seen mag Cheikh Hassan mu nekk ci fekk nañ seen waajur Seydi Ali mu nekk ci fekk nañ seen maam Cheikh Ibrahima mu nekk ci waaye fekk nañ tamit seen yaay Seyda Fatuma Zahra mu nekkoon ci kon tey dëj am na fii ci Medina waaye dëj am na ci ummal islam yëpp ndax duñ ko tënk ci Medina ndax jigéen ji tey lislaam ñàkk l'islam moo yàq moo ñàkk yarkat l'islam moo ñàkk dundale ci yàlla ci lu yaatoo yaatu l'islam moo ñàkk jàngkati alquran bu mag l'islam moo ñàkk jullit bu mag a mag a mag dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla jangal damm bi di ñaan na kanamam leer ak waajuram mu tedd woowu te loolu amuñ ci sikk yàlla na ko yàlla dëkkale ak Seydi Ali te loolu amuñ ci sikk ak njabootam gi nga xam ne jiitu nañ jiitu nañ ko ñoom ñëpp yal na yàlla kaweel seen ala al ali yéene fi des muy imam Cheikh Cheikh Mahi ak seeni jigéen yàlla na yàlla def ci ñoom barke ak seeni njaboot te li tasaaroo ci mbaax ci seen yaay ci seen baay ci seen maam ci ñaari côté yépp yal na leen ci yàlla jox cër bu law a law a law a law ñu ngi koy jaale alxalifa Cheikh Ahmad Tijani Ñas mattaan allahu bi baqaa'ihi yàlla ko yàlla dëgëral te yàggal ko ñu ngi koy jaale mbooleem njabooti Cheikh al Islam góor ak jigéen ñu ngi koy jaale mbooleem taalibe Cheikh Ibrahim yi fuñ mën di ne ci addina waaye ñu ngi koy jaale mbooleem ummal islamiya di wax الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu te yàlla nañu yàlla jox yool bi nga xam ne diggee na ko ci ñi nga xam ne bu leen musiba da ñëwalee dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi leen koy jaale waa lisaat al fayda ndax lidaa bii rajo bii ak télé al fayda bii ligéy soxna si la kon ligéy na ligéy boo xam ne du dëñ ila an yarisa allahu al arda wa man alayha dafay gën a dem ci kanam waaye du dëñ mukk ndax bàyyi ci firi alquran wax na xadis joo xam ne mu ne yonn sallallahu alayhi wa sallam wax na inna atyab ma akala al insan kasbi yadihi wa inna waladahu min kasbi yadihi li gën a tey ci li lekk mooy lim fàggu ci loxoom ñaq ko te doomam moo ko faggu ci loxoom Seyda Fatma Zahra moo fàggu ci Xasan Xasan moo fi samp lisaat al fayda bi kon yéen ñu ngi leen koy jaale jaale goo xam ne jaale gu spécial la gannaaw loolu tamit ñu ngi koy jaale lisaat yi nekk fii ci dëkk bi réseaux sociaux yi waaye ñu ngi koy jaale mbooleem réew Sénégal ñu ngi koy jaale président Macky Sall ndax jigéen ji nekk gi mu nekkoon fii ci àddina bii yërmaande la woon ñeexal jullit ñi yërmaale woon ñeexal jullit ñi ndax wama ma kaana allahu li yuadibuhum wa anta fihim wama ma kaana allahu muadibhum wa hum yastaghfirun yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko duma leen mbugal mukk te fekk yaa ngi nekk ci seen biir boo fi jógee duma leen mbugal mukk fekk ñi nga wax astaghfirullah te wóor nañu ne kii ñi ñàkk tey di Seyd Fatma Zahra am na cër bu law a law a ci Seydi Wujur sallallahu alayhi wa sallam kon l'islam moo ñàkk tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla jàng bi jaay Seydi Wujur alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen koy jaale yéen